Euh, dëgg la secteur bi ñu nekk jànkonte ne ak ay jafe-jafe comme ni ko doomu aadama yi defee doomu aadama bu nekk mbir a ngi sa bopp moo xam ne yaa ko war a saafaraal sa bopp te mënoo ko saafara te nag nit ki mooy mooy mooy kër gi mooy mooy kër gi mooy réew mi kon loolu faaw ala kullee leen dafay am mais li ñuy def nii d'abord mooy sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ndax jafe-jafe yooyu nga wax moo waral nu daje fi parce que lu toll ne projet bi nga xam ne si ne moo fi tax tax daje muy projet Paja bi nga xam ne wàllu formation lay def président de la république initié ko and ko banque mondiale muy 30 millions ñu nar ko def ci secteur 40 milliards ñu nar ko def ci secteur artisanal c'est crois que lolu nek na lu am am solo lo xamné kenn kenn musu ko gis euh, bi ci des tam moy ni nga xamné non lañ ko tëralee moy dañoo bëgg maître artisan bi nga xamné ci si ne moo war a yi nga xamné ñom lañ wara former maître artisan bobu dañuy renforcer capacité ba nga xamné euh, dana dana dana mëna gëna former nam daan former ba noppi jàppale ko ci ay équipement ba noppi xayma xam-xamam bu ñu renforcer capacité am xayma ay xam-xamam ni mu toll ñu jox ko lijaasa bu méngoog loolu bu dee sa sa sa sa sa xam dafa toll ak maîtrise la ko jox bu tolloo ci ingénieur daa la ko lu mu mën a toll bu ñu ko xaymaa ba ne am nga xam sa xam-xam na nii ci sa métier daana jox lijaasa boobu te lijaasa boobu moo ko ko jëlee ci école ñoo yem donc loolu mu nekk lu ama am solo loolu nag au niveau national lañ ko def mais nun région de Dakar déjà def nañ Tëngéej def nañ Géejawaay def Pikine Dakar moo war a def assemblée générale am samedi incha allah bu soobee yàlla am na ay fiches aussi yoo xam ne dañu ko defar yoo xam ne ba ay questionnaire la képp koo xam ne bëgg nga cee bokk dañ la koy jox nga remplir ko bu fekkee remplir nga critères yooyu ni ñu ko laajee ñu ñu ñu sélectionné la bu fekkee sélectionné la ba pare nag daa ñu ñëw ci atelier def visite des lieux pour seet ndax li nga def ci fiche bi ak li nga ak li na ci yow méngoo na wala déet xale yooyu itam bu ñu leen dee formé dañoo jàpp ne diirum ñetti at war nañ cee mën a mën métier te it dañ leen di defal ay examen comme ni ko ni ko ni ko eh, élève bi nekk école di ko defee ñu génnee ñu jox leen jàppale leen ci ñu installé wu mën a am atelier continuer seenu liggéey koo ci xam ne aussi euh, entreprise mën a laa jël mu jël la embauché ngay liggéey je crois que emploi direct la boo xam ne président de la république loolu la initié ci secteur artisanal pour que ñu mën koo gën a euh, suqali mën koo gën a organiser organiser ci biir loolu nag ma ci woo ñëpp nag parce que bu kenn des parce que bul bul ne am naa diplôme sàngam du ma jàngi métier parce que borom diplôme boobu moo war a ñëw ci artisanat bi su demee ba mën métier dana ko mën a dana ko mën a yóbbu foo xam ne xëy na ñi ko ni ko doon jàngee bu njëkk ak ni ñu koy jàngee bu mujj dana wuute loolu dañoo soxla trop ñi nga xam ne am nañ ay ay diplôme ay wala ngay maîtrisard wala ngay même doctorat yi soxla lañ leen ci biir secteur bi parce que secteur la boo xam ne mooy sookalu développement wu réew réew bu nekk rawatina Sénégal tey kër boo fëgg ay artisans yu bari fay génne lañu li ñuy li ñuy def ak li ñu yor li ñuy def ci emploi aussi kenn fekku leen ci te amuñu woon benn subvention bu ñu leen defal kon bu ñu jàppalee ci lii daa daañu leen jàppale ci ay équipement yëpp loolu dana am solo trop te yaakaar naa ne suñu ko defee ba projet bi jeex président dana xam ne mi ngi door a tàppe fi ñu war a tàppe